salaamaaleykum mbooloom ñu ngi leen nuyu di leen jaar di leen baalu ak di leen baalu man maa ngi tudd Cheikh dëkk Déni Biram Ndaw sama papa nekk Ngaari Niang Serigne Ousmane Niang moo may jàngal. ñaata nga am. am naa treize ans. treize ans léegi ban saar nga ni tari. sootu bàq. ca kaw.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 بحكمه وعلى أبصارهم قصاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم tudd man Thierno Thierno waaw Thierno sa diggante Girido nu mu demee man sama diggante Girido Girido moom yàlla na ko yàlla fay rek ñu mu defal kenn defaluñu ko fii si defal fii mu bëgg ne yàlla joxe yàlla joxe moo ñu jox ceeb moo ñu jox ñu lekk mu jox ñu naan ah. ñu lekk ba suur ah. ñu ñaanal ah. di ko gërëm ñu sant ko. mas ngeen a mas ngeen a kii piscine tey gis nañ leen ngeen di pàcc pàcc mas ngeen mas a gis piscine. dara ah. moo tax ngeen gis piscine ah ba nga duggee ci piscine bi lan nga sant. Hmm? loo yëg. dara dara foo nga waaw kaf maa ngi tudd Issa de bon suñu diggante Gris parce que lu yàlla boole na rek parce que ñun xamuñu ko woon xamuñu ñun lu yàlla dogal si doomu aadama day am rek parce que c'est la deuxième fois mu ngi koy def kon dafa doon loo xam te ne Gris chaque jour day fàttaliku boppam ne moom ci taalibe yi moom si la bokk parce que gri moom lii day wóor ne mu ngi fàttali ko ba léegi parce que nit boo jaaree si daara xam nga lu si lu nekk si daara metti na neex na mais balaa nga xam neexaay ba day yàgg boo suñ diggante giri yi dañ naan rek lu yàlla boole la parce que lu mu defal xale yi nii du lu ndaw si ñoom lu rëy la si ñoom parce que nga jël taalibe jëloo ko sa daara bu muy jàngee nga ñëw lu mel ni hôtel nga dugal ko fa ñëw toggal ko añ mu lekk ba suur nga bàyyi ko mu sangu mais mënoon na jël alalam bi dugal ko feneen wala mu xalaat si leneen toog ko ñam rek du benn affaire am rek woo xale yi leew lekk waaw xewam ñëpp neex ñëpp a ñëw mais amul lu mu def lu du xalaat taalibe kon loolu rek si bu rëy la moo tax den naan rek dañ ko ciy ñaanal yàlla suñu borom may ko si lépp loo xam ne mu ngi koy yootu rek suñu borom tali ko ko te muy doon chaque jour lu gën si moom ñu ngi ko naan rek kontaan nañ si moom daal. ndax xam ne li mu def daal dul tuuti lu rëy la si xale yi parce que xale lii dafa bokk si lu gën a feexal xolam parce que booy xool lii dina naan élève la nga ko xamee dem sorti dem sangu ji loolu la ko xamee bu demee ba tey taalibe yi jóg di dem si ay hôtel di sangu du feex dañ leen a bëgg a feexal seen xol ñu bëgg ñu xam ne ñoom si population bi lañ bokk sa jour parce que taalibe dafa bokk ci population bi bokk ci population bi lii taxul ñu bon lii taxul ñu bañ a xam seen yoon lii lépp day tax ñu gën a mën a feexal seen xol rek ñu gën a xamal seen bopp na ñoom ci population bi lañ bokk sa jour parce que taalibe du lu yomb lu metti la waaye boo ko dund wul tamit doo ko xam parce que boo ci nekkul doo xam lu si ne ñun si la ñuy jaar ba tey màgg suñu màggee si la xam njariñ ba lan la woon mais booy nekk xale métti ba rek ngay xam. mais est ah, loolu nag du ñàkk si daara loolu du ñàkk si daara parce que daara boo ko déggee daara boo ko déggee metti na neex na yenn saa nga jànkuwanteel lu metti ba nga xam ne lii moom metti na. mais da koy muñ jommi jamono rek mu jeex mais muñ googu nag moo jafe foofu diggante boobu parce que ku la gis dina la yërëm ah man sama doom du dem daara sama doom dama ko yóbbu daara boo gisee ñuy wax loolu parce que lu muy dund moo tax metti na nag mais li ma la wax rek si kanam ngay xam njariñ ba si kanam tuuti ngay xam njariñ bi day jàkkantoo lu metti parce que lu si nekk metti na dinga def lu ne lépp loo xalaat si liggéey rek di nga ko def si la bokk nag parce que formation xale la. boo la yóbboo daal da am lu ñuy def si yow du toj sa xel sa jour di la woyofal boo déggee yelwaan bi pour woyofal nit ki la dañuy woyofal doomu aadama bi ba tax ëllëg fu mu mënti nekk nga xam ne yàlla moo xam doomu aadama lu muy doon ëllëg man nga jàng doo doon nga jàng doon leneen mën nga jàng doon sa sàcc mën nga jàng doon rekkatu nit mën nga jàng nag doon walliw tame moo sax chaque jour dañuy toj sa xol nga xam te ne ba ëllëg foo mënti dem yow si da ngay mën a demal sa bopp da ngay mën a liggéey. di gëm sa bopp moo war a yelwaan bi du dara yelwaan bi soo defee tamit ñu yelwaan parce que mënoo yor téeméeri xale ba pare appelis nga yor téeméeri xale yow yaa jox ñi lekk di jox naan yow sër mi xëyoo gontoo kon il faut xale yi yelwaan tuuti am lu lekk am lu la indil yow sëriñ bi. waaw ñu ngi lay fay Fatou ñu nuyu ñuy seetaan Wassare yëpp Wassare TV xam nga. di nuyu sénégalais yëpp di sant yàlla bu baax di julli seen def salaa di sant suñu sëriñ Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak kilifa diine yëpp di ñaan yàlla di nuyu waa hôtel Arc-en-Ciel Patrice ak jabaram Céline Diouf ak toute l'équipe waaw Maodo nekkul pour une pour une première fois bi mooy deuxième eh, édition mën nañ koo wax ndax sa relation ak ndongo daara yi kenn dootu loo ko laajati mais initiative bi nan la waaw initiative bi association la mooy man la ak Papis ñoo ko décidé woon daaw defoon nañ ko mais ren ñu yokkaat ko tuuti pour taalibe yi ñëw bége pour rek bëgg rek ñuy découvrir chaque vacance gars yi gis ko xam ne ñoom di leen encourager daal ci li ñu nekk parce que man moom kon li may wax rek taalibe moom man aw awma ci moom yërmande man dama am ci moom ñee dama ko ñee ci li mu nekk affaire yooyu moo tax nag dañuy kontaan trop pour partager ak ñoom bis yu mel nii mhm. Mhm. ñu gis sànq yow ak xale yi yéen di foo xam nga di kaf di reetaan mais lii lan la lay fàttali. waaw fàttali ma rek ay parce que ñun ñoom ëllëg dinañ gis lii bu ñu génnee ci lii affaire yooyu noonu ba mu ñu taxaw ñu taxaw taalibe yi xam nga li ma la wax ñoom it dinañ am occasion ëllëg ñu taxaw seen ay morom yoo xamante ne jaaroon nañ ci ba pare waaw parce que ñun tey mosuñu woon am occasion. partager ay nit yu ñu defal lii ñoom it ëllëg dinañ dépasser gamme bi am beneen niveau tamit bu ñu jàppalee ñeneen parce que continuité la ñii ñëm nga gis ëllëg leneen la ñuy doon ëllëg leneen la ñuy doon te tamit ëllëg leneen la ñuy taxawal. Euh, Gris nga nekk porteur de voix ñu gis ni ñu bari euh, dañuy ki ñeewantal seen doom. pour yóbbu leen daara yow ñu gis ni façon bi ngay comporter ak ñoom te am na ñu bari bu ñu xoolee ci Gris 2 dañuy am envie yóbbu seen doom daara est-ce que tey ñi lay seetaan sur Wassare Lamb wala ñi lay seetaan ci àdduna ban message ngi leen di lancer foofu. waaw comme li ñuy def rek des mooy ñi xamul rek xam nga daara moom ay produit am dañoo soxlawul sax wax ak lijjant gëm nañu li ñu gëm te ñu ngi ci ñun ba ñuy jàng daara am na ñoo xamante ne ay nationalité français la ñu yor ñii nationalité américain ba léegi sunu ay xarit lañu seen ba États-Unis la ñuy juddoo ak seen ay waajur seen waajur yi lancé leen pour ñu ñëw daara ja parce que seen waajur yi ay nitu daara lañ woon ku xamul daara rek yaay nekk fii naan da nga yërëm taalibe wala dañoo tumuranke wala laa wala lii ñooñu tey delluwaat nañ États-Unis ba nekkaat ay kilifa ba gérer ay mbir yu mag te tey amaana daara moo leen jaarale foofu moo tax ku xamul rek xamoo des fois sax nga dégg ku naan kuy xool taalibe ba si yàgg sax ni ñii seen waajur yi ñoo soxor affaire yooyu fekk yow yaa wérul yow yaa wérul parce que nit ku nekk ak sa choix dafa am ñoo xamante ne judd nañu gis Sadio Mané ak ay milliards am ne man de sama doom école de football la jëm xam nga ñii cortège Macky Sall la romb ñu gis Matar yi am envie am doom bu ñuy taalal Matar ñoom it loolu seen choix la am ñoo xamante ne nag dañoo jur seen doom ak ni doom neexee ñu jox ko alquran ngir xaraak ëllëg ak xam. diisaayu alquran kon ku nekk ce choix la mais képp kuy xool taalibe ba ne ñii xanaa amuñu waajur wala ñuy seet ay waajur kiiwul yoo xamal ne sa sa nitee des na waaw parce que choix la te seen waajur yi choix bi ñu def mooy choix bi gën te balaa ñu koy xam nag ëllëg jot wala ñu teg la ci buntu bàmmeel di nga ne bu ma yëgoon sama doom yëpp dinañ dem daara hmm. ngay ànd ak koo xamante ni mën nañoo wax ne euh, der bu weex la muy Patrice ñu bari dañ ñaan yéen ñaar bokkoo leen religion mais yéen ñaar nan ngeen mën a def yéen ñaar seen relation ni mu demee ak tamit social bi muy def ci à travers ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy euh, a yi loolu nan la demee. waaw Patrice moom lépp la <laughs> di koy gisee loolu <laughs> ku ko xam rek boo ko miinoon ba xam ko rek di nga xam ne moom benn nitu spécial la boo xamante ne ñun sénégalais yi moo ñu gën a nekk sénégalais waaw dafa bëgg Sénégal. dafa bëgg Sénégal ndax dafa bëri ay kii yoo xamante ne toog nañu benn jour ba corona bi amee affaire yooyu noonu tubaab yu bëri di ñibbi di kale seen billet di ñibbi day toog di leen ree quoi mu ne mais ñii deewee France ak deewee Sénégal xam nga ban différence la am affaire yooyu mu koy wax mu leer na la kii moom dafa bëgg Sénégal ba pare nag am fi njariñ parce que man dama naan ay ni muy joobee ak ni muy buy créer dara sax xam nga lu mu ciy jiital. employé yi mu war a jël danaan la boo defee lii nii dëgg la dinaa sonn mais di nga am ñeneen ñu liggéey wala ñeneen ñoo wutal liggéey affaire yooyu bu dajeeg benn jeune sax kooku ne ko looy def kooku wax ko ne lii laay liggéey lee laay liggéey expliqué sax mu ne ma kii il est courageant dalay bëgg pour jàppale la ci loolu xam nga moo moo ñoo xamante ne buñ ci amoon lu bari ci réew mi dina am njëriñ trop ci réew mi. di euh, buñ ci amoon ñu bari euh, dinañ am dinañ am njëriñ ci réew mi euh, Aziz Ndiaye mu nekk koo xamante ni mun nañoo wax ni wax dëgg yàlla mun nañoo wax ni il est ndax nekk na koo xamante ni nekk lu fi benn tarixa ñu gis ni xale la mais am na lu bari mi koy commencé def est-ce que yaa ngi ay réaction Aziz Ndiaye. waaye Aziz loolu moo ko war xam nga dafa am loo xamante ne kon li may defee nii kon li may def naan affaire man ak taalibe yi devoir la du lu nit war a nit wax merci Aziz. ki ko formé dernier moment yi ñu gis ko muy Al Amin Al Amin moomu nga xamante ne moom la mujjee di doxee ay conseil kooku ku mu conseil doo xam lan mooy murit doo xam lan mooy tiijaan doo xam lan mooy jullit doo xam lan mooy lan mooy chrétien li ngay xam rek mooy nit amal nit njariñ Al Amin dafa dem dema dema dema dema dem ba jeex tak ci mission dem bay recevoir bay toog di nelaw benn jour recevoir nañu ma ne Gris ñu toog muy nelaw ndax coono ak sonn kon nag Aziz lii muy def du bett ñu bëri ñu ko xam ci les derniers moments ki ñu gisoon mu jege ko muy Al Amine xam naa ne bu ko suivre si soxlay doomu aadama yi rek lay mën di dox moo tax li koy ñaanal rek mooy yàlla kàttanal ko yokku dooleem yokku doolem lépp luy fakastal doomu aadama mu bañ koo gis ci barke Cheikh Tidiane mais moom lu rafet lu rafet rek la. waaw lu rafet lu rafet rek la te moom ci muy dox lii nii jël ay alalam di ko def ci ay mbir loolu dafa rafet ak foo mënti bokk ak loo mënti doon loolu da nga koy bëggee waaw